salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy setan ci sen chaîne ya ko vision, tay ñu ñëw ak yeen ci sen benen numéro découverte ñu ci ak mbégte di leen présenté wat benen numéro bu am solo ci at mu bes mi ñu ngi leen ñaanal aussi atum jamu atum natangé atum wër ndax eh, jamono ji da koy laaj ak pandémie bi fi nek donc ñu ngi ñaanal Sénégal yépp tay ñëw ak yeen ci sen benen numéro découverte ñu wara waxtané lepp lu jëm ci walum ferme ni yare yaree nag yi nag yi ñuy importé jëlé ko Europe ñu gën leen xam ci ay euh, Montbéliard ay Holstein euh, yoy ñoo fi ëpp ñu fi nekk ci ferme bi tay ñu jëw ci piir Bambilor à presque 31 km de Dakar ñu wara ñëw découvrir ferme bu yag bu tuddu ferme de wayembam bu suñu papa Ibrahima badian tay ji domam géré ko ñukoy wax Babacar badian ñu war ko rencontrer sekk ak mom waxtaan bu yaatu lu jëm ci ferm bi ak ni ñuy toppatawee nag yi ak euh, lépp lu jëm autour du euh, laitière lépp lu jëm daal ci wàllum ferm incha allah dinañ ko waxtaan ak Babacar ñu xool ko mën a yaatal waxtaan incha allah. alhamdulilah naka ferme bi. waa ñuy sant yàlla bu baax. ñu góorgóorlu rek alhamdulilah. alhamdulilah mais alors ferme bi yéen depuis depuis ñaata temps ngeen créé ferme bi ak lu sabab ferme bi tey tey sa papa nekkoon ci ferme bi ba tey ji ëllëg yow nga ñëw jël relève bi loolu comment ça s'est léegi pa bi moom comme ça. En 1996 le dougou Sinagi, mais avant tout mon commerçant le commerce commerce a commencé à Sandaga. Mhm. du coup les choses marchaient bien après les un de ses amis me conseillé monsieur c'était Tamaro. waaw me conseillé que vraiment l'élevage des bovins est c'est quelque chose d'intéressant que que en 1994 après pas bi commencé ferme pour yenn installation mhm. après en 96 ci la la première nagui mais depuis ngi def changement du même sujet Il fi ay peut être euh, euh, vache laitière chaque fois on da ngay dafa la force réformes. parce que à un moment donné nak bi di jour su juré danaka ñent ñent yoon ba juroom yoon il faudrait penser génné ko ci ki bi parce que en premièrement danaka dotul dotul amati ben ben productivité bu mm. bu ki bi alors que ñun loolu lañ soxla ci vache laitière mm-hmm. danaka nak bu joxewul mew mom am amul ben njëriñ <laughs> parce que rentabilité lañuy wër c'est vrai c'est vrai c'est légui euh, ferme bi ci superficie bi à peu près c'est combien parce que gis nañ ni xawna yaatu machallah waaw léegi ferme ferme bi moom trente hectares superficie trente hectares la. Mhm. léegi fii la commencé jëmee côté ba côté bële ne mhm. côté àll bi noonu. kon mun nañ dem dugg ci biir découvrir li fi ne. aywa bismillah. fii de moom fi ma fii la ñuy bàyyi veau yi. veau chaque à chaque naissance rek léegi veau bi fii lañ koy indi. Mhm. après ñoom xam nga duñ duñ leen bàyyi ñu nàmpal seen bopp. Mhm. si seen yaay yi. Mhm. léegi dañ leen di chaque fois chaque veau su juddoo rek dañuy indi yaay ji de ce côté là. léegi veau bi des fii après léegi. le soir waaw le soir léegi dañuy dem traire yaay ji. après indi ko seen bi en plus si on serait dangereux parce que maximum li 3 3 litres de lait par jour non euh, le matin après 3 euh, litres le soir 6 litres litres au total après chaque fois quelqu'un qui s'occupe de ça chaque fois après la traite rek prélèvement après les mesurer chaque fois 3 litres

voilà instant bii nii y en a plusieurs ah. parce que bii ma gis bii Holstein lañ dugal noir blanc. waaw Holstein normand. ak mooy mooy bu mag bi waaw. léegi yii nii dañ leen a bàyyi fii ak yu ndaw yi parce que c'est des vaches aveugles. Ah, duñu gis quoi dañoo gumba. no yu mag yi quoi. mais lu indi phénomène boobu souvent c'est les mouches dafa am ay met ay vaccin yoo xamante ne suñ ko teelul jël. waaw weñ suñ ñëwee apporte des microbes après léegi microbes, yooyu mooy waral des fois bët am infection après du coup. ok mais tey mën na provoquer. xanaa amoo leen vétérinaire vétérinaire bu ici suivre au quotidien wala qu'est-ce qui se passe. si si am na am amna, na y a, kii ya ya ya Augustin boo xamante ne chaque fois moi ñëw di suivre nag yi mais c'est des choses yoo xamante vu que xam nga sax instant bi wàññeeku na mais vu avec trois avec quatre cents vaches vu neuf cents vaches sax nekkoon na fi récent c'est récent c'était pas évident que yan race ñoo fi nekk ak yi yan yan la yi ñooy ñu parce que gis nañ ni tey eh, seen meew yi bari na ñoom daa mel ni ñoom la seen doom yi nekk fële. Mhm. ok yii lañ war a traire après quoi. waaw léegi waa yii ni ñoom ñoo jur récemment. Mhm. après gis nga dañ leen a séparer si eh, ak yële parce que yële ne am na sax parmi eh, si ñoom ay vaches gestantes. parce que nag mën nga ko rat pendant sept mois léegi trois mois yi nga bàyyi ko mu reposer léegi après fii moom race yi fi nekk bii ni métis. jersey Montbéliard mhm. bii nii métis brune Holstein kii métis brune normande beene bii nii jersey bële normande bee mooy am na ay normande yu xaw a bëri Montbéliard fii nii bii mooy métissage bi mais Montbéliard bi fee ne fële la nekk fële moo am ñaari Montbéliard mais tay, par exemple lan moy condition ou tey pour am pour de ferme yow ñu gis ni jeune nga tay comment ça s'est fait nga mëna a ñëw bàyyi lépp ñëw concentré wu ci ferme fi lool lu waral lool lu waral motivation boobu en tant que jeune. vraiment lu yag la quoi y a un moment bo xamante ne j'entendais chaque fois comme ça dañ fi daan ñëw nak après tout pendant euh, l'enfance quoi daara ja lañ nekkoon légui pendant les fêtes de tabaski pas bi dañuy indi pour que ñu ñëw ferme beeg c'est quelque chose qui m'intéressait tellement ba nga xamante naa anecdote bi mhm. j'ai préféré que le vieux parte mu faté ma fi <laughs> pour que man ma mën euh. c'est quelque chose qui me qui me passionne vraiment parce que en plus depuis longtemps quoi parce que mhm. amna ben moment à xamante ñëw fi pendant bima ma deuxième année quoi pendant les vacances de Noël je suis venu me gis ne vraiment y a tellement de problèmes ba pare avant nag yi dama nekkoon si élevage laa bi léegi vu chaque fois man moom dama ne samay mbir ñaar rek la mhm. soit ma ma bay wala ma nekk si affaire jur alors laa ma ne xaaral vu laa si y a des problèmes affaire yaa ngi xaw a suux te mhm. paa bi yi mi ngi jëm mag mhm. alors là pourquoi pas man ma nga xamante ne damaa jàng ma mën a jàppale si paa bi si loo xamante ne moom la ma fayal ma ñëw vu loolu moo manqué Mm-hmm. alors la vraiment tamit amoon na y avait des peurs parce que vraiment la situation était scandaleuse mm-hmm. après léegi mm, ma ñëw léegi ma ne xaaral daal vraiment il faut que je m'y mette mm-hmm. mais après léegi on a commencé par wàññi yenn yi léegi c'est ce qui a permis sax ñu xaw a jekk tuuti léegi instant bi nous sommes en voie de euh, kii quoi redressement daal macha allah macha allah Ou mel ni kon yow léegi ban ban ban ban moment nga arrêté école à quel niveau ba xam dafa am formation particulière boo doon suivre pour mën a ñëwaat euh, kii lii aussi tamit euh, que ni élevage ak agriculture ñoo ànd est-ce que tey mënoo allier ñaar yëpp. exactement si si mën na nekk waaye soo seetloo comme ça j'ai commencé euh, fële Jeanne d'Arc post bac laa commencé. Hmm. léegi après ma def ba fa la amee sama licence mais j'ai j'ai pas arrêté ah. a waaw après léegi cours du soir quoi. <laughs> ok chaque soir léegi damay dem kii dem dem dem suivre yële quoi. sama sama cours yi. après maintenant je reviens la nuit léegi fajar gi ma yi ñoo bokk liggéey bi. ok macha allah. fii am na par exemple ñaata ñaata employé nga am au total ci ferme bi lay léegi fii am na am huit personnes huit personnes. Ah. léegi ñett yoo xamante ne ñoom ñooy def assurer alimentation bi. Mm-hmm. may nag yi lekk yooyu ak ratt bi. après léegi am na ñaar ñoo xamante ne ñoom ñooy occupé wu gardiennage bi. ak kenn koo xamante ne moo nekk si bunt bi ak kuy def mélange bi. léegi yi eh, bii nii moom métis Holstein normand la tamit. vraiment euh, c'était une expérience bu boo wa pasta gris def nañ ko. ferme gris parce que ils ont constaté que ni xam nga Auchan yi souvent ñom ñoy ëpp meew. waaw mais sen meew danaka soko wayalé premier jour bi mën na rafet mais deuxième jour bi day trois jëm troisième jour day commencé def ndox. Mhm. du coup après alors que Norm Normandie même souvent ils ont un problème avec la chaleur. alors là pour quoi exactement. Les ñoom vraiment fait expérience ils arrivaient à à produire 1000 litres. avec les avec les métis actuellement vous faites combien de litres par jour Oui, ça tourne environ matagul 400 mais jege 385 390 disons. et vous arrivez à les écouler rapidement. Mm, ça dépend si hein, parce que récemment avec la grève on a diversé 1000 litres. alors là une valeur de 500 000 pour société boire société Maintenant. démarrer puis c'est... trop en plus. les vaches là connu comme machine mhm. tu ne peux pas arrêter de produire. Mhm. chaque fois nga ils ont besoin de manger ab léegi suñ le suñ il faut que ñu produire mais mais bi soo ko jaayul c'est une perte de la aliment bi nga leen bi nga leen kii en fonction de l'aliment qu'il mange sax ci la ñu mën a amee production lait bu laitière bu baax exactement mais daal ñu ngi sant quoi parce que on se débrouille avec les moyens du bord pour écouler mhm. tey boo ñu doon wax tey euh, dimbalu état par rapport à vous les éleveurs yi nga xam ni yéen a nekk ci production laitière yi est-ce que am ngeen jàppale tey bu war wala est-ce que yéen tamit booloo ngeen booloo boo xam ni tey dina faciliter loolu. wa man de man je suis jeune. ba pare bima ma ñëwee yàggul. mais le problème man man man d' ce que j'ai constaté c'est que moy union bi des na. Mhm. niñ bëgg a man je constate que souvent ku nekk da ngay bëgg mal sa bopp. Mhm. et pourtant instant bi le monde le monde bi faire dépasser l'eau pour man quoi instant le monde fonctionne en mode qui partenariat. da ngay am lii nit am lii ngeen ñëw associé mën def lu mais ku nekk su ne tay il faut que man rek man ma am dal rek pour mën dem alors que kenn am na ñaari dal amul ben mën la abal ben bi nga dem ñëwaat. Mhm. alors là la chose doit être vraiment beaucoup plus simple tay gis nga moment de au moment de couper l'ensilage là mooy sorgho bi ñuy bay chacun s'est débrouillé avec ses propres moyens alors qu'il pouvait s'associer jënd ay matériels yoo mhm. xamante ne tey suñu ñëwee soxla Ibrahima bu soxlaa mu dem Babacar bu soxlaa mu dem voilà vu que en quel comme ça en quelques jours ñu ñu def le travail ñu abattre travail bi yëpp après léegi là tout le monde part de son côté Ok. en plus man daal gis naa ne jàppalante bi dafa des léegi état moom si luñ koy xaar wax dëgg yàlla état vraiment mi ngi def ndimbal mais apporter ndimbal si élevage bi waaye pour man dafa des ce n'est pas euh, continuer wul chaîne bi ba mat là su fekkee ne da nga subventionné ay nag euh, nit ki jënd nag le lait le lait frais maintenant chaque fois instant bii nii soit da ngay jàppale éleveurs yi pour que ñu am ay usine de transformation mm-hmm. en plus de ça su fekkee ne sax loolu mënoo kaa def là nga xaw a bloqué le lait en poudre au moins après nga xamante les gars seront obligés de consommer le le le lait frais légui après mais état bi chaque fois dalay dalay jox nak bayé la nak bi mhm. nag bi su deewee soo amee problème wala so amé meew mënoo ko écouler c'est pas son problème il se soucie même pas de ça alors là mais gis nañ comme ñu melni wa anipel mhm. ñom aussi dañuy importer ay ay vaches mhm. ak yooyu yëpp defe naa ñoom it am nañ ben suivi bo xamni tay tey dinañ ko am ci vaches yi jox nit ñi ak ak yooyu yéen mosoo leen bénéficier wu ci vaches si si comme ça il y a daan nañ ci ay sax mais après xam nga souvent avec les éleveurs mhm. avec les vaches laitières le problème qui se pose moi écoulement problème d'écoulement mhm. parce que euh, d'après ce que j'ai constaté on dirait que le lait est méconnaissable des fois même tu demandes à un jeune ba xam da ngay naan mew mu ne ban non non non j'ai jamais vu alors là ce n'est pas normal. Oui, parce que nous avons une communication. ak écoulement aussi de façon à nous ko fait. voilà donc nous avons un groupe ak waa peut-être groupement ministère de l'élevage donc nous avons une plateforme pour pour pour mën di. mettre. mettre euh, koy vraiment ba mu ci marketing adéquates pour mën a dugg ci supermarché yi la grande surface waaw les frais de mon conservation bi mon problème du coup après amna euh, certains qui commencent à faire du lait pasteurisé le moom moo leen vu que ça dure beaucoup beaucoup beaucoup plus longtemps wala yaourt mhm. mais le lait frais là daanaka soo ko au frais environ cinq jours des fois ça du après ça commence à se transformer te wóorul ne di nga ko soo mhm. ce que je vois moi comme les Français ce qu'ils ont fait il faudra faire des collectivités yo xamante groupement yoo xamante jarul sax mu nek groupement yu reuy mais que tout le monde tombe d'accord sur le prix sur le prix bo xamante mom lañuy la exactement après légui comme ça l'État dinañu jublu soit day défar usine bo xamante mom moy ñi mom moy jënd selon des quotas quoi Fixer quotas. après muy jënd production Puis là comme ça ku nek gis ci boppam deug la mais loolu day laaj day laaj waxtaan bu yaatu té loolu il faut il faut vraiment

y a problème. Mais aussi, vous faites pas de production de viande, voilà, euh, ça vous arrive pas souvent, souvent parmi les vaches réformées, il mhm. y a ponkali des fois d'une ko si si elles ne sont pas gestantes d'une koy comme comme comme comme bovin viande. Ah, Amna ñoo xam ne seen clientèle boo xam ne dañuy jënd bovin viande dañuy ñëw di oh. xool ban nag ngeen war a génnee. waaw yooyu pour ñu jënd ko quoi. waaw yooyu moom du taxaw moom les gars sont vraiment intéressés. par ah ça ah waaw parce que ils font des voilà. vraiment la consommation de la viande moom on dirait que moo gën moo gën a dox daa mel ni meew bi. <laughs> non mais mais tey leen tey leen defal production meew bi <laughs> mun nga war nga def ñaar yëpp nga xool vraiment métissage yi. ngeen xool noonu lañ koy defee parce que aussi. à à l'Occident ñoom noonu lañ koy def dañu am ñoo xam dañuy def. dañu am ñaari parti day am bo xamni mm-hmm. c'est laitière ak bo xamni tay tey pour pour pour viande mu nek ben affaire bu intéressante mom mu lepp ñew euh investir ci ferme papam ñew pour sukkali donc mu nek affaire bu am solo ñu la ci encourager bu baax mm-hmm. légui défé na nagui dañu wara dem salle traire légui ñu bayyi la nga nga yobulé leen ñu ñu wan téléspectateurs yi nagui naka nañ leen di acum mm. să vă spun. léegi vingt vaches yi ñooy dem salle de traite. waaw yii ñoom ñoo mujjee jur. dañ leen a séparer ak yële parce que ñoom seen date d' insémination instant bii nii daanaka su jotee ñoom ñëpp la ñuy inséminer ndoor moo tax ñu beree leen de côté. d' accord en plus ñoo ëpp meew. ok mais kañ kañ lañ lay kañ lañ def insémination euh, artificielle. chaque fois su après léegi euh, trois mois après. léegi ñu. nag da daa mel sax lay ñom dañoo tam alignement bi ñi aligné nii parce que ko ci nek da nga ñew positionné wu. lan nga ñu mëna expliquer tay ak mécanisme yi ci installé wu nii yëpp logistique bi ni euh, comment ça se passe parce que li da mel ni c'est des matériels de dernière génération. wa yi ni xam nga dañ ko importer won en plus ce ce n'est pas diable ah c'est parce que c'est conçu de telle sorte que nak bi su duggé mo xam mu min ak wala mu ñakam min tay so indi won sax nak nagu olof. tey su ñëwee dugg beneen nag topp ci kawam par la force dina am benn nag boo xamante nag bii bi topp ci gannaawam soo seetloo moom moo koy exactement léegi dañuy puusante de sorte que chaque fois nag bi su ñëwee bi ci gannaaw moom moo koy ajusté léegi yow da ngay ñëw après raxas les mamelles hmm. rek su taalee matériel bi rek après commencé mais nag après dañuy dem ba nga xamante ne dañuy miin seen heure ak seen yoon. chaque fois soo ubbee soo ne acca rek. day ñëw nga gis ñu. waaw ah, gis naa ne ba nga ñëwee dàqale rek ñoom ñëpp dañoo jubal. exactement vraiment liggéey bi. waaw melni fi Babacar na ya géré lepp lu jëm ci tay bi ya sa waa waaw waaw expliquer ñu tay traite bi ñu muy dem waaw machine bi dañ koy taal. ñu ko taalé paré ñu ngi yi ni waaw mom mo koy mo koy rafetlu quoi. waaw appareil yi nga jël bo taalé machine bi. waaw jël appareil yi monté ko ni nii. so monté ni so monté ni waaw xam nga mo xam nga monté naa ko. waaw légui mu ngi koy traité. à part yi ndaw yi nii. waaw ñoo koy traité. ñoo koy xëcc par par ndànk par ndànk par ndànk par ndànk. ba mu ah. jeex. waaw bu ngay xëcc nag day day jaar ci raakol bii. waaw wàcc jaar ci teewa bii nii. jaar ci teewa bii ñëw nii ñëw nii ñëw nii ñëw ñëw bii fii ñëw fii. mu ñëw ba ci ci weer bii. bi waaw waaw mu ñëw ci weer bii. bu bu demee ba ci weer bu bëri. waaw nga pompe ko mu dem ci tànk ba. ok waaw. am na beneen place boo xam ne benn plan bu nekk waaw waaw benn tànk bu nekk foofu. waaw kooku lañ ko stoppé. d'accord muy sedd. ok doo am benn problème. ok waaw. d'accord waaw léegi mën nañ la liggéey comme ça ñu xool. waaw waaw mi ni muy ñëwee waaw waaw waaw waaw. actuellement ni mi ngi nekk di dem. mi ngi dem waaw. waaw parce que pression bi mi ngi wàññeeku ndax. waaw mi ngi dem waaw léegi lii traite bi ñaata temps lay durer tey. waaw non léeg-léeg nga am deux temps xam nga rek bu nga gis comme nag yi dañuy bëri rek léeg-léeg nag yi dañuy yokk léegi ñu wàññeeku. waaw parce que dañuy dem ñu ñu fer. waaw ñu am ñu wàññi. Mm-hmm. léeg ñu jur am ñu yokk. waaw loolu moo tax nag léeg mu xaw a durer léeg mu xaw a gàtt. léegi nga am 2 heures de temps wala 3 heures de temps waaw ñu ngi àgg si comme nay rek. waa ji moom su ko bësee contact boobu. waaw chaque directement meew bi day ñëw jaar ci tuyau bi. gis nga tuyau bi léegi moom moo nekk nii après tuyau raccordement bi mooy ñëw ba fii. léegi mu ñëw mu ñëw versé wu fii mais normalement si tànk bi tànk bi moo koy seetal. fii la war a versé wu. mais dafay am client yoo xamante ne dañuy am préférence ci meew bu tàng bi. du coup après dañ koy def dañ leen dufal si bari suñ leen jaayee. li des après ñu soog ko kii. xaaral ko def xaaral normalement fii rek lañ ko waroon dugal parce que warul nekk circuit ouvert parce que meew daa seet léegi après chaque fois du coup client yaa ñu obligé sax ñu koy séparer mais après fii lañ koy def agitateur bi fekk mi ngi tourné léegi tax kii bee ngay taal pour mu sentu après léegi. vraiment benn degré degré boo xam ne waaw exactement léegi après keneen. suy jël donc pour yaourt pour production yaourt waaw daanaka ñun moom instant bi li ñuy commercialiser c'est juste bi les frais mais après. am na waaw ñun moom les frais instant bi rek si lañ limité. mu euh, alimentation bétail bi de waaw la bokk. de ngeen waaw comme ça suñu alimenté ba pare sax lañ leen di lañ koy uh-huh. parce que avant tout c'est des ruminants. Uh-huh. après les te ruminant moom daanaka dul après léegi lii nii suñ ko duñ le concentré peu importe la quantité qui ñuy kii doo résultat si meew. Hmm. moo tax mënul ñàkk fok fok ay nag lañu avant tout. foog ñu lekk ñax. ok mais bi eh, yéen koy bay wala da bu leen koy jënd. non non lii yëpp dañ koy jënd dañ koy jëndee waalo. ok indi ko fii. d'accord ñu xool yeneen. lii lan la. waaw léegi lii nii moom mooy sorgho boo xam bi ñu bàyyi léegi dafa am machine boo xamante ne moom moo koy wal lépp lépp. Hmm. après léegi kii ko wal wal da koy wal bési bi ak en même temps lépp lépp lay boole wal ko quoi mu nekk sous forme leer waaw après léegi mu mu su ñëwee nag camion yaa koy indi suñ wàcceewee léegi il faudra louer pelle. Hmm. bi ñëw. kii wal la ko waa dajaleel la ko. après léegi ñu jël tracteur bi compacté bu baax parce que. pour conserver ko norme normal mhm. su fekkee ni compacté woo ko bu baax lu si suuf yëpp day nëb alors moo tax daal après mais ñaata temps lay jël tey conservation bi instant bi ni soko mouré ni su la nexé mën na dem ba de ki mën na yag mën na def un an fekk ubbi woo du def dara le problème dal moy na ci air bi baña bañ baña dugg ok mais par exemple ba nii nii même même balaa ngeen koy utiliser pour jox ko nag yi ñaata temps la war a def quoi par rapport ak ñu ko kii. waaw la la maïs bi moom bi mu ñëwee rek dañ ko dañ ko jox nag yi directement. Mhm. mais sorgho bi instant bi il faudra que mu xaar minimum deux mois. deux mois ok ñu dem xool beneen installation bi. waa yii nii mooy comme même âge que yële la c'est vrai waaye gis nga selon les races mhm. dañuy dañuy différent su seen màgg du bokk gis nga kii nii soo seetloo moo sut ñeneen ñëpp normal normal la normal la waaw bi normal léegi ñu ngi à combien bi comme yële cinq mois six mois mais soo seetloo gis nga ñii daa mel ni ñoo sut yële te pourtant bi ñuy ñëw soo leen gisoon da ngay wax non c'est pas mais plus que euh, xam naa tamit le fait que ñu ber leen ñu nekk fi cinq kese après di lekk normal. moo waral daal waaw léegi dañuy màgg màgg bu gaaw vraiment sooy alima sooy alimenté sa kii kii. Mhm. foo ba pare di leen surveiller pour en cas de maladie maladie fii aussi ñi nga am yan yan yan ban ban ban compartiment la ci ferme bi fi ñu nekk. waaw fii comme ça fini, mom moom la njëkk a sax ci ferme bi avant yële yëpp amutoon. ferme bi côté bi rek la fété woon mais légui instant bi ni fi lañuy ber les vaches gestantes. yii nii après mais yi mom dañu xawone yoy légui il faudra ñu ñu ber leen nak pour ñu lek bu baax pour mëna ñëwaat d'accord parce que ça ne sert à rien du tout su fekkee ne nag bi nag suurul. Mhm. daanaka soo ko inséminer du jàpp te ba pare y a de fortes chances que mu avorter su fekkee ne gestante là. parce que day laaj moom force. waaw exactement. yi mooy yu gestante yi. waaw léegi yu gestante yi yan ak yan race ñoo fi nekk yu yu gestante ay. waaw Montbéliard wala Holstein. Mm, non non soo xoolal benn métis Montbéliard. waaw noir et blanc bi Holstein waaw noir et blanc sino da birin birin ak normand rek la hmm. ñoo fi ñoo fi nekk yii ni normandie mooy yu wex marron yi des fois ñu am noir blanc léegi brune yi moy yele hmm. yu ki ne ci ginaaw na la waaw bi moom métis normand metis normand mhm. am nga am fii ak euh, sen sen gestation mi ngi toll ci commune mi wa environ comme ça chaque fois suñ len di sevrer fay fek nak bi am 7 mois du coup daanaka trois mois moo leen di dese ñu kii normalement am na si yu bëri yoo xamante ne yàggatul ñu jur. Mhm. ko soo xoolee waaw soo xoolee seen wéer nii sax. Mhm. ak comme bële ne waaw léegi même bële ne tamit sori am naa ne yàggatul daanaka ñoom ñi ñëpp wàcce. incha yaa ngi am yan yan yan yan kii yaa mel ni aussi ay jeunes lañ quoi. waaw yii nii moom ñoom ñoom ñooy jeunes yi léegi daanaka mun nañoo wax ne ñoom ñooy relève bi. ok léegi am gis nga ñaari jersey amna jersey. Mhm. amna na tamit normand métis normand montbéliard bële métis normand kii normand holstein ñaar yooyu dend noonu. d'accord. léegi yii moom Holstein bii Holstein léegi Holstein Normand bii nii métis Normand Holstein. yii kañ ngeen yaakaar ne leen leen inséminé d'ici combien de mois. am na si boo xamante comme bële ne bu noir bële noire et blanc. waaw gis naa ko waaw boobu elle léegi tey mu jur. Uh-huh. mais après yi gën a mag yi ngay gis ñaari comme ñaari jersey yi bu weex boobu. ak bii nii ñoom inséminé nañ leen ba pare. léegi yu ndaw yi xam naa fii quatre mois cinq mois normalement suñ lekkee juk après waxtaan mi ngi jëm ci jeex tey yéen est tey ferme bi yéen a envisage yi dem yenn foire yi am dakaar ngeen dem exposé seen ay sujet wane li ngeen di liggéey ndaale machine à pour xale yi mën a xam euh, liggéey boobu ni muy demee mais bi nan naka lañ koy defaree est-ce que yéen ngi seen mi ngi seen waaw exact effectivement loolu moom ñi ngi siy bàyyi xel bu baax a baax parce que avant sax may ñëw fii. Mhm. Fiara Fiara bi passé j'avais vu gars yi exposé bi ma ñëwee fii la première question bi ma laajte mooy lu tax yéen exposé wu leen mais après ñoom fekk ñi ngi tal seen problème seen problème yi. Ah. mais effectivement incha allahu kay bu soobee yàlla su amee foire yoo xamante ne dina incha allah préparé nañ dinañ pré fas yéene nañ préparé ay sujet après léegi. wane parce que ku nit ku nekk tamit li ngay liggéey moom wax dëgg yàlla nit ñi gis ko kontaan si rek boobaa nga si gën a am satisfaction. ok parce que dañuy gis ni aussi occidentaux yi dañuy liggéey seen vache yi aussi. ñu am dayoo boo xam ne am rafetaay boo xam ne tey boo leen xoolee ci condition yi nekk da nga leen di bëgg au delà de viande mi ñuy def ak ak laitière donc yooyu aussi leen ci ñaax peut être ngeen ci gën a góorgóorlu ngeen am ay vache de sélection yoo xam ne tey dina nekk pour beauté ak ak ak lépp. waaw bu soobee yàlla parce que ñun moom xam nga am na si yoo xamante ne sax avec la période de crise affaires yi laal na leen. Mhm. daanaka doo mën a am si ñoom benn yenn critères yi. mais am na si ñoo xamante ne suñ kanam lañ juddoo. léegi nag yooyu moom ngay mën a toppatoo màgg nga kiiwanteeg ñoom ba nga xamante ne moom bu soobee yàlla daanaka dayoo bi nga bëgg dina ko am ba pare njool dina njool en plus macha allah quoi dina rafet. bu laay macha allah macha allah mais suñu émission jeex na. lii lañ leen indiloon tey seen numéro découverte ferme de Waye donc looy tëjee loo am boo amee looy looy tëjee ak looy wax mais après instant bi moom man tout ce que j'ai dit peu importe milieu boo nekk peu importe âge boo am man je me dis que su fekkee ne tu penses que que tout est personnel quoi su fekkee ne yow tu penses tout est confiance de soi su fekkee ne la personne pense que ni lenn mën na ko def lii

donc les monnaies nekkoon émission jox